ak daara yàllaw safil baxaa bihi li fika yàllaw bismil ilaahi fiinil ak daara yàllaw safil baxaa bihi li fika yàllaw ya man la amruya man la sharika lahu wasi'a wa ma liwaat likhfika ya Allah wajatuka yawma ñu sant d'abord suñu borom ci fekkee bu mu ñu may ñu fekkee ko ci weeru koor bi nga xam ne weeru yërmande la ñu ñëwoon euh, indi ndimbal boo xam ne ci turu délégation bi ma àndal nga xam ne soxna Kiné Niang ak soxna Kadio ñoo ko taaral ak Modou Mboup ak euh, jëwriñ Malick Sène mii di magu Cheikh Alassane Sène ñu ñëwoon indi ndimbal loo xam ne ay nag yu bare la ak ay denrées alimentaires donc mu jagle loon ko prison Sénégal yëpp yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru kon bi ñu xëyee ci suba ba léegi ci loolu lañ ne fii la ñu terminé léegi ci camp pénal euh, mu nekk koo xam ne moom ku xam mbiru kaso la parce que bu leen fàtte ne mës na nekk camp Cap Manuel euh, tëdd na fa lu ëpp at kon ku xam mbiru kaso la ku xam réalité kaso la kaso nag nekk loo xam ne lu metti la si ki ñu denc waaye tamit ci waa këram nga xam ne bés bu jot ñu ngi paas paas bi ak dem bi visite bi rek dafa metti sans compter nga war di ko toggal di yóbbu moo tax moom mu jàpp ne doon sax ci korité gi mu am lu mu leen defal loo xam ne wax dëgg yàlla dina xaw a soulager famille yooyu euh, mais également dafa nekk nit koo xam ne tam ku xam ni kaso méttee la te loolu dafa nekk ci biir programme kon moom ci double casquette am chef religieux mais également chef de parti il avait jugé nécessaire ñëw kon foofu tamit am na benn borom xam-xam bu mag bu daan reetaan loo nit ñi nekk France ñu koy wax Coluche nee na bu amoon xaalis du tabaxaat école parce que leer na ko ne du demati école mais dina tabax kaso kon pour wax rek ne kaso jombul kenn moo tax rafetoon na trop ci weeru koor gi ñu bàyyi ñi ñu leen di ñaanal tamit ñu gaaw ñi bi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci biir këram fekki njabootam fekki ay doomam fekki jëkkëram jigéen ñi tam dem fekki seen i borom kër ak seen i doom mais également ñu leen di ñaanal ñu amaat une réinsertion bu normal ci biir société bi loolu moo doon kàddu yi ñu ngi leen di gërëm. ndimbal bi ngeen andi nii ak yan prison lañ ko yóbbu. bon euh, prison forbe du prison bu mag yóbbu nañ fa benn nag. yóbbu nañ fa macaroni ak soble prison Cap Manuel aussi du prison bu mag mooy prison yi gën a néew li ñu denc le yóbbu nañ fa benn nag ak soble ak ndox euh, prison bu mag bi nga xam ne moo nekk 100 mètres euh, yóbbu nañ fa repas pour 1000 personnes en tout cas yóbbu nañ fa macaroni ak ñaari nag ak soble bu bari ak ndox quantité boobu aussi moom la ñu indi fii ci biir camp pénal c'est bon léegi tamit euh, question bi may mujjee mooy cheikh bi yóbbu na ndimbal li ci prison yi. te moom ku ko xam-xam ne jot naa def prison lu ëpp at est-ce que loolu moo gën a tax mu jàppale prison yi alors que mënoon na ko yóbbu feneen aussi. Euh, prison yi benn facette kese la bu ñu jógee fii ci benn pouponière la ñu jëm kon social moom social da koy dund 365 euh, euh, jours sur 365 jours lii c'est une des facettes ci social bu muy def tey volet prison yi lañ jëloon ak pouponnière yi mais Cheikh bi il est tout le temps dans le